les amis internautes de Lou'Bess TV merci et jërëjëf ci topp bi nga xamante ne yéen a ngi koy topp la chaîne leader mu di Lou'Bess TV le chemin de l'information duñ ci tàyyi benn yoon di leen ko fàttali du dara ngeen ñu koy bàkkee ñu sant bu baax a baax suñu borom di remercier ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy dooleel saa su nekk tey nag dañu ñëw ci seen émission bi nga xamante ne yéen a ko tànnal seen bopp mu di Lou'Bess Actu nee naa la lu Lou'Bess Actu da lay mettre au même niveau d'information ba nga xam lépp li xamante ne dafay xew ci réew mi yenn saa itam ñu jox li nga xamante ne dafay xew ci biti réew bi tey nag lu bees actu dama ci daan ànd ak ki nga xamante ne moom moo di sama naataango Ahmadou jàllo waaye itam tey dañ koy bokk ak ki nga xamante ne moom moo di Abdou Aziz Fall manager la waaye moom mooy ki nga xamante ne moom moo di le PDG dalu Lou'Bess TV damay nuyu Ahmadou jàllo dalal la bu baax nga daal di dalal ki nga xamante ne moom moo di monsieur Abdou Aziz Fall. jërëjëf Chérifa maa ngi lay nuyu di bu baax di nuyu aussi Abdou Aziz di gërëm ak sant suñu chers internet yi nga xam ne ñoom ñooy suivre un peu partout dans le monde di leen wax rek bisimilah ci lu bees actu. Hmm. jërëjëf daal sa DG. waaw merci Chérifa euh, merci Ahmadou ñi ma yër ñi ma bokkal plateau bi donc may profité ci occasion bi di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan à travers Lou'Bess TV gëj naa fi lool nag mais bu ñu fi teewee rek am na lu ko waral donc xam naa bu ñu duggee ci biir dinañ gën a yaatal waxtaan bi mais en tout cas merci ci invitation bi. ñu ñoo gën a kontaan ci invité ko Ahmadou Diallo ndax saa su nekk su teewee si plateau bi euh, taxawaayam wala sax euh, ay waxam dafay am solo bu baax a baax te suñu mbokk internet yi dañ koy apprécier bu baax a baax nee naa la fii nii dañuy euh, prôné li nga xamante ne moom moo di la polyvalence ndaxte ku ci nekk rek fu ñu la teg. mën nga àddu jëm ci li nga xamante ne moom lañ lay doyee tey nag dañuy waxtaane li nga xamante ne moom moo di actualité politique li ci gën a fës nag dafa ñeel li nga xamante ne moom moo di wàllum presse te ku ne lu bees TV da ciy dugal loxoom bu baax a baax dañu bëggoon xam ana lan mooy le rôle de la presse Ahmadou Diallo. waaw le rôle de la presse Chérif boo ko déggee c'est s'informer juste et vrai loolu li li euh, liggéeyu média wax ci dëgg wax li nga xam ne mooy dëgg te yaakaar naa ne loolu mooy définition bi nga xam ne ci éthique ak aussi. loolu mooy définition bi xam ne moom la presse la ñu wooye presse mais nag euh, yaakaar naa ñeneen ñi ci yokk loo xam ne bokk ci mais bu ñu gën a xuus rek nañ ci gën a développé incha allahu rabbi. Mm-hmm. bu ñuy gën a xuus dañuy gën a développé Aziz Fall lan mooy le rôle de la presse. bon je pense que Ahmadou a tout dit ah donc euh, dafa am rôle bu bëri bu muy joué te ñii ñu ngi naan quatrième pouvoir ñii naan troisième pouvoir di xool en réalité lan mooy position presse par rapport ak li nga xamante ni moom mooy. Euh, euh, société buy dox donc comme ni mu ko waxee informer juste est vrai c'est vrai mais tey comme ni mu ko waxee encore une fois tey dem nañ ba presse dafa neutraliser la société tey bu ñuy wax luy dëgg ak lu dul dëgg dañ naan est-ce que presse bi wax na ko est-ce que waxu ko donc en réalité xamago xamatoo sax euh, fi dëgg féete parce que y a beaucoup personnes yoo xamante ni ils se considèrent comme étant des acteurs de la presse alors qu'en réalité va falloir ñu ñu ñu ñu formate leen pour defaraal leen pour que li nga xamante ni moom mooy rôle effectivement pour la presse ñu man ko euh, situer. kon euh, maison bu jug rek wala site bu jug rek mën na woowee boppam maison de la presse. waaw c'est important c'est très très très très très question parce que tey pour que nga ñu reconnaître la rek dafa am foo war a jaar ba am reconnaissance pour que yow ñu dugal la ci base de données nationale buy wane ne yow. au moins euh, acteur nga buy yëngu ci wàllu presse que ce soit presse en ligne que ce soit presse classique bi que ce soit et cetera presse écrite bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp dafa am loo xamante ni moom moo leen coiffé donc tey nag il y a beaucoup de youtubeurs comme on le dit yoo xamante ni ils se considèrent comme étant des acteurs de la presse alors que da ngay jékki-jékki rek créer sa benn chaîne YouTube commencer di dugal contenu di dem ci ay manifestation ba mu yàgg nga ni waaw yow acteur de la presse nga donc alors que warul demee noonu moo tax tey xamuñu le monde de la presse pour dire vrai xamuñu kii est qui parfois nga dem si yenn rencontre doo xam kii est qui chaque jour nga gis lu bees chaque jour nga gis euh, chaîne bu bees chaque jour nga gis site bu bees chaque jour nga gis article bu bees à la fin il va falloir qu'on réglemente le tout pour que ñëpp mën a xam effectivement ñan ñooy yëngu ci presse ak ñeen ñoo ci dul yëngu. je te repose la même pëccoxoo réeroo dafa am si diggante li nga xamante ne moom moo di euh, kër yi est que jotul ñu xoolaat anam bi nga xamante ne moom la ñuy traité information bi. waaw Chérifa xam nga dafa am benn phénomène bi am ici au Sénégal mooy ku gàddu micro rek ñu ne la journaliste ku gàddu micro ñu ne presse bi tey dafa am li ñuy wax les mën nal wax neexal laam ñoo dugg ci presse bi dem ba yow nga yaakaar ne lu la neex nga war a véhiculer tey les chroniqueurs sont là toggal ci grand di wax di werante benn chaine xëcc la ñoo teg la nga nekk chroniqueur waaw da ngay wax lu la neex xamu fu limite nekk influenceur yaa ngi fi da ngay yore sa benn page TikTok wala page kii def ay affaire ñu jël def la influenceur jox la émission. Chérifa mu am loo xam ne dafa dafa dafa dafa ñaawte yaakaar naa on le vit tous les jours suñu quotidien jamono ñu jégal ma si terme boo waxee rek ñu ne la ah, journaliste nga waxoo dëkk dañ koy jaar ci digg ne da ngay fen. journaliste yéen fi dàq fen dafa nekk moo boo xam ne dafa bokk suñu quotidien jamono ji heure boo waxee rek euh, loolu la lay delloo parce que dañu jàpp ne léegi journaliste yi wax duñu wax dëgg comment on est arrivé à lan moo waral ñu egg fii tey dañ koy wax dangay gis koo xam ne benn businessman la ñoo créé benn chaîne parce que jàpp na ne que presse war na si mën a am doole war na ci mën a lekk dara day ñoo créé businessman la ah. ñoo créé benn affaire xool yenn booy yu génne yenn quelque école de formation jël la recruter teg leen jël benn appartement meuble appartement meublé ko moom mi ngi séentu tey nu muy amee dara ci nga xam ne ni ñoo ñoo wër langue politique bi parce que langue politique bi moo tax ñuy wax parce que yaakaar naa corruption bi ci ci foofu la ne jëf ju ñaaw ji ci foofu la ne ñoom nga mën am dara ci ñoom business boobu nag bi mu doxee ba tey la pëcc xoo bi am ñépp dugg. te da nga gis ko ku def émission sax benn politicien woo la ñun ñëpp dund nañ ko. ma waxal ma lii dégg nga diw lu mu def dégg nga diw lu mu def yow doo xool sa diggante ak sa yàlla doo xool ne ëllëg war nga tëdd sa biir bàmmeel da ngay jël jël benn information ci Abdou Aziz Fall véhiculé ko ma ñëw titré. Abdou Aziz Fall surtout titrage TV rek teg ci benn boobu bu ñëpp daw dugg xool continue bi nga liir ci kaw ba si suuf doo gis dara. parfois nga dugg si contenu ça n'a rien à voir ak titre bi dañuy bind Abdou Aziz Fall rek jël photo Abdou Aziz taf ko nga gis ñu bind Abdou Aziz faal bu Thiès. mu nekk coow loo xam ne ni ko li ko waral mooy business bi nekk ci presse ak chantage bi nekk ci presse dem na ba presse foog na ne ñoom dañoo am doole boo xam ne mën nañ def lu leen neex te li ñu waxoon rek éthique ak déontologie dafa dem ba dañoo dañ ko jéggi. def loo xam ne ne vraiment jéggi na dayoo nag léegi titre yu bëri boo duggee li nga fay fekk ak li li lay wax contenu bi c'est c'est diamétralement opposé c'est ça. Ah, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom Ahmadou Diallo ak ki nga xamante moom moo di Abdou Aziz Fall ci seen euh, point de vue par rapport ak li nga xamante moom moo di première question bi laataa ñuy dugg ci deuxième question bi nag. ndax dañuy wax presse en général mais coowal coow li li koy indi dafay gën a bokk ci li nga xamante ne moom moo di site internet yi comme ni ñu leen di woowee yow mi nga xamante ne bokk nga ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo def pratiquement cartographie wu site internet yi nekk si dëkk bi yépp est-ce que jotul ñu réglementer li nga xamante ne moom moo di milieu bi segg seggaat am benn quota bu ñuy teg ñu ne la tant que yeegoo fii kat mënuñu la considérer comme étant un site. li nga wax lu am am solo la parce que yàlla dafa def a eu à travailler projet. pour faire effectivement le, euh, le cartographie des sites internet au niveau de, de, de Dakar mais en particulier le Sénégal mais comme ni nga ko waxee dafa dafa grave quoi parce que ñu bëri tey dañuy jaawale luy luy luy en fait luy euh, étant acteur de la presse ak youtubeur kii wax na ko parce que ñun sénégalais on a tendance tey booy génnoon sax yor sa micro di dox sax ñu ni xoolal journaliste bi comprendre te alors que en fait métier la métier la euh, la presse yaatu na yaatu goo xamante ne ku si nekk ak am na rôle boo jouer ak responsabilité Ahmadou wax na ko yaa a des chroniqueurs y a des investigateurs y a des journalistes y a des présentateurs un ensemble te tey benn mënul dem bàyyi moroomam li nga wax nag tey am na ñu bëri ñoo xamante ni aujourd'hui ñi ngi am ñi ngi nekk si digital bi am ay un million de d'abonnés et tout tey mais boo demee seen local da leen di xeeb am na ñoo xamante ni si néeg la nekk am ñoo xamante ni seen biir chambre bi ñuy fanaan. fa la ñuy def seen banc de montage fa la ñuy def lépp am na ñoo xamante ni amuñu sax local. te pourtant chaque jour que jëfee ñi ngi dem su si kii si si sur la presse et l' autre aspect di nga gis ñoo xamante ni tey dem nañ ba am problème ak yoon ñuy soog a xam ni en fait effectivement c' est des organes yoo xamante ni c' est fictif. maanaam mm. existé wul fenn du si kayit du si dara déclaration bi war amuñu ko. te pourtant ñi ngi joxe l' information est ce que ñoom ñoo war a joxe information est ce que également ñiy wàcc sur le terrain c' est des personnes yoo xamante ne ils ont eu à bénéficier ils d'une formation professionnelle en du du métier donc il y a beaucoup de yoo xamante ni tey ñun dañ ko war a poser biñ ko defee résultat yi am muy que ni pratiquement sur cent euh, ay 30 pour cent ñoo formel. 30 mm-hmm. pour cent ñoom ñoo ci jaar yoon bu normal pour. au moins am reconnaissance juridique ñi si des ñëpp c'est des organismes yoo xamante ne c'est fictif donc cela veut dire quoi mooy que ni tey lépp luy créer ay information yoo xamante ni parce que nit ñi ñi koy joxe en fait jaaruñu jànguñu soit wala xamuñu lan mooy code de la presse wala xamuñu effectivement lan ak lan ak lan soo xoolee fii bi ñu koy inauguré Lou'Bess TV bi euh, sëriñ bi dafa ñëw mooy naa lay am lu mu dénk jaboot gi leen tey lépp loo leen di génnee rek na fekk ngeen am ay sources ba ko na fekk mu doon information bu juste mais également bu vrai ngeen koy soog a joxe. am na loo xamante ni aussi tamit comme ni ñu koy yàgg a waxee bu la leeree ni lii tey boo ko génnee mu taal ab réew. Mm-hmm. préféreel teg ci sa tànk waaw. préféré teg ci sa tànk parce que am na loo xamante ni tamit ay réserve la lu naan c'est des réserves parce que euh, taal taal taal taal réew si ay benn mot wala benn sujet benn verbe wala benn complément aussi pour man jaru ko am na loo xamante ni Euh, déontologie bi moo la ko dul permettre mais ne serait-ce tey nga xam fi nga jëm fan la ak li nga bëgg a génnee comme message lan la Ahmadou fi may daaneele mu wax lu am solo parce que dama bëggoon intervenir si loolu noonu tey am na ñu bëri ñoo xamante ni on les appelle des courtiers. Mm-hmm. en fait tey bëgg nga yëngal réew mi wala bëgg nga yëngal euh, présidence wala bëgg nga yëngal benn secteur. nga woo ay nit ñoo xamante ni da leen di graisser. Mm. ñu dem toog ci plan public bi waxal la wax boo xamante ni en réalité teguñu ko fenn xam nga tey ki nga xamante ni moom mooy le journaliste en tant que da ko protéger. Mm. mais cela ne veut pas dire que ni loi protégé na la ba lu la neex da ko war a wax. wala kii donc moo tax ñu bëri tey boo xoolee des va et yoo xamante ni mi ngi am tout le temps au niveau du tribunal face aux journalistes situation boobu noonu moo ko waral. situation boobu moo koy waral nee woon naa leen du rien ñu daal di koy invité ci li nga xamante ne moom moo di lu bees actu bi tey ndax du ñu waxtaanee rek actualité mais dañuy dugg ci biir xuus ci li nga xamante ne moom moo di surtout site internet yi ndaxte coowal coow li rek ñun ñoo koy andi ci li nga xamante ne moom moo di ci réew mi donc nañ def la part des choses bu nekkee présentateur nga nga ne présentateur bu nekkee animateur la nga ne animateur la bu nekkee nag da nga am say diplôme certifié que yow tu es journaliste tu te considères mais bu mu tax ngay def naka su dul noonu comme ni mu ko waxee lu la loi protéger protéger dina am ay daan yoo xamante ne dañ koy teg sa kaw ami téléspectateur de Lou'Bess TV bu nekkee yéen ak ñuy doo ko dab ñi ngi si Lou'Bess Actu tey nag Lou'Bess Actu bi dafay xaw a spécial ñu ngi jàll ci li nga xamante ne moom moo di deuxième point bi moom moo waral coow li fan yii yëpp ndax ki nga xamante ne moom moo di euh, le premier ministre dafa jë àddu jëm ci li nga xamante ne moom moo di coowal impôt par rapport à la presse ak li nga xamante ne moom moo di ndimbal yi nga xamante ne euh, presse yi dañ ko doon jot du presse yëpp nag am na si ñoo xamante ne dañ daan jot am ñoo xamante ne comme li ñuy wax rek parfois dafay daal di demee li nga xamante ne moom moo di boor coow li nag daf fi jur euh, sortem boobu daf fi jur coow lu rëy rëy ñu bàyyi la nga àddu jëm ci loolu. waaw Chérif xam nga coow li yàgg na am. <coughs> te boo xoolee le plus souvent coow li impôt impôt bi yëpp euh, directeur de directeur yi ñooy génn DG yi ñooy génn ñoo wax expliquer parfois nga gis ñi xam ne dañ fay liggéey aussi bëgg bëgg am benn importance devant le DG toog di wax ni wax impôt buy liggéey ci dëkk yor benn structure wala société nga teg ko euh, jël ay nit leen fay ñu am bulletin de salaire ñu lay dagg impôt impôt bu da nga ko war a verser. pour man gis nga combat bi warul nekk sa combat wu état combat wu ñi liggéey ci presse la waroon doon. Mhm. parce que si seen salaire la daggee ñu di ko war ko fay. tout à fait léegi yow fayoo fayoo. heure bu ñu la nee salaamaaleykum rek nga ne état bi daf may xeex parce que lan ànduma ak moom heure bu ñu nee salaamaaleykum nga ne état daf may xeex te chaque année bu ñu jiitu yéen yéen yéen yéen mën naa ne benn genre lobby boo xam ne ne ñoom ñooy jiitu la presse ñooy taxaw. ñoo si bénéficié la presse wax wax na dem taxaw bu ñu waxee ñun léegi euh, impôt bi dañ koy effacé ñu dem taxaw ñu dem effacé chaque année ñu ñu ñu fay liggéey ñoom fu mu ne seen fu muy dugg est-ce que demandé nañu loolu parce que ci seen salaire lañ ko dagg ëllëg boo waaj boo boo boo yee nga mën a am jot sa retraite normalement alors pour man te ñun chaque jour la presse ñooy bind naan tel ministre a détourné ça telle personne a détourné telle personne a détourné mais gis nga bu waxee wax bu tollee ci wax waxu impôt ku nekk taxaw di am looy kaas parce que lan gis nga Chérifa liberté de la presse yaakaar naa dafa dañ ko tëgg xamuñu ko dem nañu ba euh, vie privée jàmbur lañ gën a concentré que vie professionnelle. te da nga gis benn Abdou Aziz Fall mi ngi fii ci dëkk bi mi ngi def li mu war a def du ñu wax Abdou Aziz Fall lu muy liggéey teg na benn structure bu mel ni Lou'Bess TV teg na leneen ak leneen mi ngi liggéey tout mais ñuy xool Abdou Aziz Fall kan la àndal démb ku mu nekkaloon démb fan la dugg fan la génn loolu vie privée jàmbur la. Mhm. ça nous arrive tous les jours nit woo la téléphone diw de def na lii def ne wax ko mais vie privée la am na droit ànd ak benn d dugg fu ko neex. sa bopp ngay. non non man sama bopp parce que man man li ma wax rek affaire de booy lay jaay jaay man damay doxalal dama maay damay dox mais nañ génn ci vie privée jàmm gis nga bu ñu commencé def ay affaire de buzz ak affaire yooyu di def yenn émission yi moo indi lii problème bi yëpp parce que dafa am lu ñu wax vie privée te chaque jour ñu jot ay information yoo xam ne dangay xam ne lii boo ko génnee euh, dangay gaañ la personne dafa am pap am yaay am njaboot te heure boo laajee tey presse bi kenn si ñun ñu taxaw di kaas. Euh, euh, li ma gën a metti mooy DG yi di wax ñi xam ne man jàpp na benn lobby lañ gis nga bi presse sénégalaise sonne tëgg gisuñu leen bi ñu gazé la presse bi fi taxaw préfet bi taxawee fi ne je m'en de la presse gazé même la presse gisuma benn DG bu gën a kaas. Mhm. bi ñuy jàpp booy di leen dóor ay xeer jàpp presse bi di leen dóor benn DG taxawul fii di kaas kenn gisoo ko ci plateau télé mu kaas gisuma benn chroniqueur bu taxaw di kaas. mais tey bu ñu yeggee stade bi wax waxu impôt rek ku nekk takk micro di wax ñun Abdou Aziz Fall bu fayul impôt dañ ko koy wax. bu keneen ak keneen fayul impôt dañ ko koy wax mais mën a toog ci plateau di télé loo xam ne ne vraiment yoo xam nga ne lii jëmul kër. c'est ça le problème actuellement. c'est ça le problème actuellement ñu bàyyi la yow itam nga daal di àddu rek jëm ci li nga xamante ne moom moo di coowal impôt beeg aide de la presse. Euh, merci c'est une question boo xamante ni ñun ñëpp ku si nekk am nga si xalaat bu la neex. parce que li ñu war a njëkk a taxaw seetlu mooy tey bu maye day am kan moo war a maye parce que dañ ni Sall bi muy dem dafa baal li nga xamante ni mooy ñi ko yoreel impôt mm-hmm. le secteur de la presse à hauteur de ñaata quarante et quelques milliards mm-hmm. mais imaginez c'est l'argent du contribuable mm-hmm. tey ku si nekk am nga rôle ak responsabilité si xaalis boobu noonu lu war a delluwaat si société bi la lu war a duggaat si ay keesu état la souvent dañuy wax large euh, euh, l' état c' une continuité. mais le président Diomaye bu ñëwee bu ko neexee fi yëngalaat dossier boobu. continu continuité leen wax mu ne ah lii ngeen yaakaar ni quarante milliards bi kat dañ ko delloo si keesu état yi ñaata e, hôpital la mën a tabax ñaata et cetera et cetera non y' a beaucoup yoo xamante ni nit ñi duñ ko bàyyi xel léegi nag. xam nga lu mu wax dafa am solo donc lobbying bi ça tourne autour de quelques personnes man je me suis dit waaw mais kon yooyu yii yëpp daan na am. kenn du yëg donc s'il y avait pas une transition président Diomaye ñëw ak son premier ministre am na yu bëri yoo xamante ne duñ ko découvrir kenn du ko xam. donc euh, non mais am na ñu bëri xamoon nañu ko sax mais da nga doon ragal wax parce que jàpp tey boo waxee rek sa DG mun na la xëy ne la licencier la. voilà c'est c'est c'est bien parce que nous sommes dans un pays de droit. Mm. et ku si nekk tey war nga am looy xaar si état bi mais état bi am na tamit lu muy xaar ci yow. Mm-hmm. échange la bu ñuy naxante suñu suñu suñu biir te l'autre aspect tey ñi nga xamante ne tey mooy clic boobu ñu. ñu ni dañ leen bëgg a baal quarante quarante et quelques milliards wala dañ ko bëgg a fay ñu taxawaat gis nga la stratégie bi ñu développé pour nga wax ni rek gars yi dañu dañu dañu comprendre lu bëri ñoom les patrons de presse classique danga gis ni vite fait dañ diffusé wu ñi jibawul woon sax daan classante jibawu nan kii dem fii kii dem fii pour que ñoom ñu parler le même langage alors que pour man du loolu ku war a fay na nga fay ku war a fay na nga fay beneen bi aussi tey dafa am lu bëri loo xamante ni étant acteur ku si nekk da nga ko war a xaar parce que tey képp kuy liggéey fu ne ñaan nga yàlla retraité surtout ñaan nga yàlla retraité te boo retraité war kër ga nga doon liggéeyal mu signé la contrat war na am lu mu mën a delloo si yow pour man leenee lu ñu war a lu lu normal la pour ñu verser que dans les caisses de l'État pour que sur le plan futur ñi war a am retraite ñëpp mën a am retraite si jàmm ak salaam kon nag euh, ñi ngi ñaan ki nga xamante ne moom moo di état bi engouement bi nga xamante ne jël na ko par rapport ak mu di euh, remboursement dette yooyu noonu mu def ko te mu doon loo xamante ne dafay dellu ci li nga xamante ne moom moo di askan wi. dañ ne sànq da nga wax lu am am solo nga ne presse moom mooy quatrième pouvoir ñu jàppee ko quatrième pouvoir est-ce que presse war presse war na doon li nga xamante ne moom moo di chantage ci li nga xamante ne moom moo di état. wax ci ay wax la. parce que non parce que boo xoolee quatrième pouvoir bi fii ñetti pouvoir moo fi am presse nag am na doole nag euh, yaakaar naa ni bu cool yi baree bu ñu ibbee bu ñu waxee rek nga tiit mais nañ ko teg ci yoon li ñu wax informer juste et vrai gis nga Chérifa chantage bi nekk ci milieu de la presse du ma ne milieu de la presse am milieu milieu audiovisuel. Mm-hmm. dafa grave. gis nga boo amul loo ragal boo amul looy xool looy seet naan ah bëgguma suñu waa kër dégg ma ci wax ji wala dégg ci coow li non Chérifa gars yi encaissé nañ <laughs> dañ doon encaissé ak doole alors euh, dañ doon encaissé parce que xamul naa. est-ce que moom encaissé wul. loolu jar man ni ah. ma wax rek man dama ko dama ko yàgg mettil te mettil moo koy wax gis nga Chérifa nañ bàyyi bu bu nit di wax dëgg rek ñu am fu ñu ko fu ñu ko fu ko farale demeewul noonu dañoo ne informer juste et te gis nga liberté de la presse bi ñuy bi ñuy wax chaque jour tax na presse bi yaakaar na ñoom lu leen nee wax ci plateau télé nga ñëw attaqué waxal ko loo xam ne mu wóor na li li dëgg soo waxee ñu ne non parce que ñun ay journaliste lañ dañ cee war a wax dañ cee war a ñu wax nga dem ba laar honneur u joomu te gis nga lii euh, gis nga fi muy mujjee dégg nañ fi barki démb nit daf am na ku mu xeexal chaque jour ma ne presse nañ def attention parce que fi ñuy mujjee mooy nit ñi fayu seen bopp ñaata plainte ñoo fi nekk pour diffamation ñaata plainte ñoo fi nekk par pour ay coow du mujj fenn. Mm-hmm, mm-hmm. parce que lan après dañ koy arrangé suuf te gis fekk wax jooju dem na boobu génn na dem na. loolu dañ koy dañ dañ ciy bàyyi xel ëllëg day dox nit ñi dañuy euh, seen seen ay njaboot dañuy màgg kon bu ñu jëlee ne pour euh, presque mooy quatrième pouvoir rek ñu foog ne ñun on a droit à de dire tout ce qu'on noonu nañu xool nañu limité li ñuy wax vie professionnelle nañ ci wax lu jëm ku ñu dénk tey mbirum état am nga droit ñu wax ci mais nañu bàyyi vie professionnelle vie privée jàmbur yi. Mm-hmm. nañu bàyyi bu ñu toogee ci plateau télé di attaquer les personne directement. c'est très nañ bàyyi loolu parce que mooy indi ay frustration fan yëpp gis nañu dafa mel ni tension yi dafa monté gars yi ñu ngi xuloo ci plateau télé di xeex parce que lay mujj parce que ku ne da ngay bëgg a fajal sa bopp. man beaucoup de personnes ñu mel ne man léegi ku ma waxati journaliste ma waxati dara sa sa sa organe de presse laa lay fekk attaqué la foofu directement la. Mhm. parce que lii dafa war dafa war a jeex mais lan moo ko indi dafa am benn benn benn te bariwuñu ah bariwuñu benn 3 4 5 journalistes yoo xam ne. ñoom jàpp nañu déjà accusé nañ leen accusé waat leen nag yaakaar naa ni ku ci mel ne Dadis Camara bu taxawee fii président ancien président Guinée tudd ay tur tudd ay journaliste ñeneen ak ñeneen di leen tudd ci à travers le monde di ne def nañu ay chantage yoo xam ne hmm. def nañu ko ay ay ay ay ay njiitum réew njiitum réew jëm bi xoola Kadhafi yeneen ak yeneen léegi ñun Chérifa ñu war a accepter loolu ici au Sénégal la presse war ko accepter ñii nañ toog ci presse bi leen neex wala nañ toog chantage état pour quelle raison ñu koy chantage état. mais na war a mën a sàggan ba li nga xamante ne moom moo di presse di ko chantage. daa fekk mu nekk état boo xam ne nekkul ci yoon gis état bu nekkul ci yoon c'est facile nga chantage ko c'est facile nga chantage ko parce que da ngay yow da ngay leen xamal loo xam ne ne li ñu wax rek dañ ci teg conc kenn du bëgg a wax mais tey boo ko génnoon wax wala ñoom dañu lay woo parce que dañuy bëgg ku leen fësal. wax seen tur wax seen ay baax-baax. te def nañu ay ay bêtises yoo xam ne ne mi ngi fii moo gën a grave ñoom li ñu def mais li may wax chaque jour rek état bu jubee waru ragal waru ragal presse. dañuy ñëw it euh, Abdou Aziz Fall yow itam nga daal di àddu ci li nga xamante ne moom moo di euh, presse entre guillemets ñu tuddee ko quatrième pouvoir ak li nga xamante ne moom moo di chantage. c'est vrai hein je pense que Ahmadou a tout dit euh, li ëpp solo mooy damay partager benn expérience bu ndaw rek si si période élection yi. parce que ñu bëri dañ doon wax naan lu bees si bi way kii bi kii Pastef la àndal et tout parce que en fait. système bi ñu doon liggéeyee la parce que ñun quoi qu'on puisse dire dafa am lu avant tout dañuy protéger suñuy élément te ñun gisoon nañ tension yi ni mu melee et pourtant seul cellule communication bu Pastef moom moo doon distribuer ay liens neutres pour jox ko li nga xamante ni moom mooy la presse ñu bëri nag si ñu gàtt xel dañ doon wax naan waaye gars yi leen di fay pour moo tax ñuy diffuser alors que tey avec nos techniciens mën nañ toog si kër gi fii di diffuser toute l' information en temps réel. juste pour préciser euh, l'autre aspect euh, maa ngi nuyu léegi euh, ki nga xamante ni mooy El Hadj Mor donc on s'est croisé à la police donc war nga ko xam te mu nekkoon 7TV actuellement nekk États-Unis nekk influenceur également journaliste présentateur mais léegi nii dafa def action bu rafet comme li ngay wax rek ci wàllu diffamation nit bindal na ko ci internet loo xamante ni menacé ko menace bu porté ko plainte ñu téye nit kooku mu ñëwaat pour jéggal ko baal donc El Hadj Mor geste bi nga def ñu ngi koy saluer mais juste pour wane ni y' énormément de dossiers yoo xamante ne ñu ngi si nekk mais dañu war a bàyyi xel benn affaire mooy nit ki nga waxal ba wax ji dem tey mënoo jaaraat fépp ba corriger loolu. Mm-hmm. loolu c'est très important ñu bàyyi si xel. on on le dit on le disait souvent que l'histoire de Mame Mbaye Niang de Ousmane Sonko nous a beaucoup appris. lan la diffamation lañ doon wax réclamation ñaata milliards gis ngeen fi mu mujjee. moo tax tey am na lu bëri loo xamante ni képp ku koy génnee rek en réalité war nga xam fan la mën a yóbbu nit ki d'abord dans parce que ñun ñëpp ay doomu aadama lan lan la ko mën a yàqal di point de vue fameem liggéeyam et cetera et cetera moo tax ñu war a ñëwaat si côté chantage bi tey fépp la nag secteur de l'audiovisuel comme ni mu ko waxee lépp waxuma la rek la presse rek de. fépp la fépp fépp kii parce que tey da ngay dund ay expérience yoo xamante ni mu leer na la ni am nga benn def nga ay investigation ba am lu leer ci benn dossier par exemple nga ñëw bind article bi nit ki xam ne def ngay investigation mu woo la ni la waaw mais ah mais gars ñun kat xam nga nii wax la li nga xamante ni moom mooy version bu yi nga xam moom mooy dëgg confirmer ne la loolu am na mais nañu négocier ci suuf mais y énormément de personnes yoo mais si kaw dafa am loo xamante ni c'est des grades am na ñoo xamante ni c'est des journalistes yoo xamante ni image xoolal li ma lay wax saa yu ñu génnee rek situation am na. Mhm. réew mi mi ngi tàkk wala kii pour que lan pour créer ce qu'on appelle bad buzz mooy luy fay. coow li tey dañuy wax ci wàllu pétrole ak gaz nga gis ku génn waxal la ci wàllu góor jigéen pour. nëbb li nga xamante ni moom mooy coow lee nga gis tey ñuy wax ci wàllu wàññi dund bi. ki gis kenn ku ñëw wax la si wàllu sàcc ay milliards ak leneen c'est juste pour kii donc dafa am des journalistes yoo xamante ni def leen remarque bi saa yu ñu génnee rek du ñu génn pour rien. Mhm. et c'est des c'est des journalistes yoo xamante ne aussi dañ dañ leen di gonfler dañ leen di gonfler gonfler seen compte la preuve am na yu énormément d'investigation yoo xamante ne gars yi ñu ngi koy def te du lenn lu dul. pour seen intérêt personnel mais xooluñu d'abord durant combien d'années lañ toog di jàng ñu leen di wax ni lii nga war a comporter woo nii nga war a def lii nga war a joxe comme information lii nga warul joxe mais gëmuñu ci dara donc dafa am ñoo xamante ni aujourd'hui xaalis la ñuy jaamu donc c'est uniquement ça en de contribution. merci beaucoup muy nekk contribution bu am am solo li nga wax lu am am solo la euh, de même yow ndax moom gis nga fi mu daanelee man fa laa bëgg juste rebondir ça va nous permettre aussi ma jox leen ku si nekk ngeen jox conseil par rapport ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci maison de presse yi. affaire de ngor genre dafay génn si li nga wax ndax bu nekkee ne yow euh, processus boobu yëpp jàng nga ko et tout xam nga li nga xamante ne presque noonu la war a taxawee ndaxte ku fi euh, génne si école de formation bu certifié xam nga li nga xamante ne moom moo di étude et déontologie te pourtant fu ñu toog dañ naan étude déontologie est-ce que ñoom réellement comprendre nañ li nga xamante ne moom moo di euh, ñaari termes yooyu donc ñu bàyyiwaat xel bu baax a baax li nga xamante ne moom moo di suñu ngor et que def tamit. dinañ dinañ la laajaat li nga xamante ne moom moo di ni nga ko defee ak fi nga ko waxee dërëm boo fi lekk itam yaakaar naa ne un jour viendra di nga leeral nan ana nan nga ko lekkee très rapidement ñi ngi may signaler que ni ñu ngi ci euh, cappaandawalu émission bi ñu joxe très rapidement les conseils par rapport ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci maison de la presse yi. waaw conseil bi c'est simple parce que man je pense que nii ñun ñëpp ay doomu aadama lan te tey am na loo xamante ni maanaam li naan way wuyit këpp gaal kenn ko way ci tefes. donc loolu moom mooy leçon bi c'est simple tey leer nañu tey euh, en commençant par fi ñu nekk muy Cambérène tey am na lu bari loo xamante ni tey bu ñu neexoon yëngal dëkk bi mën nañ ko yëngal si ay fraction de seconde mais am na lu bari loo xamante ni aussi tée ko wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy les vrais acteurs ban am consensus moo ñu koy gënal tey suñu neexoon aussi man na nit ñi ngi si dëkk bi on s'en fout ah léegi lépp lu ñu war a joxe comme information dañ koy joxe lépp lu ñu war a def dañ koy def parfois parfois nga génnee lenn loo xamante ni ay autorité dañ lay woo ni lii lu tax nga génnee lii et cetera mais yow danga jaar fa nga war a jaar ba génnee ko parce que nit ki bu amuloon preuve loolu doo ko génnee donc cela veut dire quoi que ni ñun ñi fi ñu nekk ñi ngi ngi fa nekk ñi ngi fa nekk te farafu la ñuy continuer di nekk conseil bi may joxe nag c'est simple mooy que ni képp kuy yëngu si presse na fekk déjà nga formaliser wu d'abord nekk également ñi ngay engagé ñu doon des professionnels bañ a yem rek ci non lu ñu neex dugal walla pour am plus de vues ñun loolu lan ñuy wax gars yi yéen parfois lu tax yéen affaire de buzz yi doo leen ko def et on n'a pas besoin de ça ñun dafa am ñoo xamante ni dañuy surveiller te dañ dafa am lu ñu wax ak ñoom donc bu ñu neexoon vite fait ay millions de vie mën nañ koy am xam nañ comment créer de buzz xam nañ comment créer des fake news xam nañ xam nañ xam nañ y a beaucoup de yoo xam mën nañ ko def mais du ñu ko def parce que chaque jour rek am na lu ñuy bàyyiloo xel mais également am na lu ñu sas parce que sëriñ bi mu toogee am na lu ñu wax am na lu ñu ko wax te tamit si loolu lu ñuy tënku incha allah ba ñëpp ñoo xamante ni jaar nañ fi bu ñu génnee mën a génn si tranquille sant nañ yàlla trois ans d' existence mosoo dégg ñu ne di ñii kat liñ bind c' est faux wala def ay investigation daan ni ñii dañuy sos wala leneen donc ñi koy wax peut-être dafa leen arrangé wul wala li ñuy wax da leen neexul donc mais lépp lu ñuy joxe comme information ici et ailleurs day doon lu ñu vérifier ba pare soo koy génnee euh, di profité également ci occasion bi parce que sànq waroon naa ko joxe. mooy président Ousmane euh, le premier ministre p parce que on a l'habitude de dire président Ousmane Sonko c'est le président de Pastef su ma neexee dafa am lu am lu mu lu am solo lu mu wax daan li fi amoon door fi amati maanaam comme jug bindalu la neex si si si doomu aadama man man je soutiens l'idée xam nga lan moo tax parce que tey nit ku nekk lépp lu mu manti doon da nga koy xool sa bopp parce tey waxuma sax yow mais tey ñu bindal sa mbokk wala sa xarit wala kenn koo xam loo xamante ni fi nga toog ngay toog di ko naqarlu parce que internet lépp netoon et Serigne Ablaye ñu koy ñaanal yàlla dafa am lu mu doon wax da doon wax naan vidéo tuddul vidéo weddi woo la tudd parce que saa yu génnee rek pour nga retracer waat le tout day compliqué moo tax lépp lu ñuy génnee rek nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax merci ce fut un plaisir ñu euh, bokk ak yow li nga xamante ne moom moo di xam sa xam-xam ci fi nga xamante ne moom moo di Lou'Bess Actu merci beaucoup également maa leen di remercier yéen ñëpp kontaan aussi si invitation bi di wax ni rek à la prochaine tey moom dañu xawoon sonn yendu police ak sàcc yi di profité ah, maa ngi maa ngi lancé un message si soxna yi ñuy dem marché seen kalpe yeeg yëpp dee leen ko téye parce que am na ñu nekk si marché yoo xamante ni dañuy këf mm-hmm. donc ñu bàyyi si xel bu baax. la torop jàpp sàcc baal ko si jamono ji Ahmadou Diallo ju bàyyi la nga joxe très rapidement euh, conseil par rapport ak li nga xamante ne mooy suñu mbokk journaliste yi. xam nga dañu toll ci benn situation boo xam ne dañu war a defal dëkk bi patron de presse yi nañuy fay impôt yi jaar ci yoon comme ça euh, mën naa ne kenn doon leen sonal ci dara les jeunes reporters les jeune journalistes animateurs animatrice yëpp dama leen boole ci benn benn loo bu nangu di doon benn arme de guerre qui que ce soit. benn patron de presse mu lay utiliser pour ngeen doon arme de guerre gis nañ fi ay presse yoo xam ne dañuy jël ñëpp ñi nga xam ne ànduñu ak gouvernement rek boole leen ci benn plateau. rien pour teg pour chantage xam naa ne gouvernement bi fi nekk moom yaakaar naa fi mu jaar yëpp ak li mu daj yëpp yaakaar naa du patron de presse moo koy moo koy sant te aussi euh, les jeunes journalistes reporters ñi def média nañuy doylu dañu am suñu train de vie dañ koy respecté c'est pas parce da nga am feeñ ci ci image rek nga jàpp ni yow bu iPhone génn bii bi bees da nga ko war bu lii bu na ko war parce que gars yi dañ lay woo suuf. mais suñu patron yi aussi dañ ñuy joxaale li nga xamante ne moom moo nekk ñu waxaale suñuy soxla. <laughs> d' accord ñu mën a doylu waale tamit. non mais lu nit da ko door a tàmm parce que xam tax nit da lay woo léegi jox ne la maa ngi lay dogalal trois cent mille. bu mhm. damay taxaw da ngay toog woo la dégg li dégg li ma waxal diw mu ne non tey kontaan naa maa ngi lay maa ngi lay defal virement. nañ koy nañuy doylu loolu jeex na si réew mi de ak jub jubal jubanti. nañuy doylu suñu train de vie gis nga boo bëggee wane ne man lii laa am fu téléphone chéré nga jënd fu lu ci ci yi ngay dugg maanaam ay affaire de chantage ak ñu lay jox fay xaas ngay waxal nit lu bon ëllëg di ko lay ak suñu borom parce que koo fi yàq par aw par bi di ko fay bàkkaar la àkk la ñu ñu ñu ñu doylu gëm suñu bopp sa salaire nga yem ci boo ko amee bu dee cent franc nga lekk ko jox sa njaboot lekk ko mais boo boo boo bëggee topp ne il faut ma laal ci affaire yi ci kaw. Mm. non vraiment ci ngi bi jigéen ñi jigéen ñi moom aussi ñu moytu promotion canapé yi yëpp ñu ngi ci. góor ñi aussi dañu moytu gars yi femmes yaa ngi fi yoo xam ne ne dañuy dugal ci mbir yoo xam ne vraiment boo boo boo àndul ak dara rek di dugg ci ci doy waar di jaajëfal ñu ba ñëpp te xam ne ne presse bi ñoo ko bokk. Mm. Sénégal ñoo ko bokk te yaakaar naa li fi jot am bëggatuñu moom ñun aussi. bu ñu jàpp ne liberté de la presse rek ba lu ñu neex wax wala lu ñu neex teg ci deru doomu aadama non non non non nañ moytu lool bu baax sama gars yi ah di la jaajëfal bu baax di jaajëfal aussi suñu caméraman yi nga xam ne tey ñoo ñoo ñu ñoo ñu sëkk Chérifa merci euh, Aziz merci beaucoup. merci beaucoup Ahmadou Diallo mais merci beaucoup aussi à PDG Abdoulaziz Fall ce fut plateau yi ndax dëgg yàlla ni ma koy waxee saa su nekk saa bu ma ko seekee rek ay njàngal yu am solo la ci nee naa la kiy wax ki koy seetaan wala ki koy déglu moom mooy mbokkam du ñu tàyyi benn yoon di leen jaajëfal ñuy jaajëfal aussi équipe technique bi nga xamante ne moom la ñu àndaloon tey AG mi ngi fa Yang Lady mi ngi fa waaye Fatima itam mi ngi fa ñu leen di jaajëfal bu baax a baax merci à ma sister Hawa Fashion depuis euh, Grand Yoff cité millionnaire moom moo jaar li nga xamante xamante ne moom moo di robe bi à la prochaine Lou'Bess Actu jërëjëf